yee yee man la saydaan luklu kenn bàyyi ba lu garde corps abama ah. tey nag maa ngi ci Leuz TV te j'espère que bien du yomb waaw parcours bi nag moom euh, dama koy tënk xale laa si aar bi mais nag euh, am naa ay jaar-jaar yu ma am yu bëree bëri parce que man maa ngi tàmbalee ci jouer nawetaan ak euh, troupe bi ñuy wax kër gi jàmm ak samay copains 33 ñu créé woon benn troupe 98 mu nekkoon benn troupe mu gi ñuy joué waa jàppoo ñu joué leen ay nawetaan di jël ay coupe waa déggoo wooñu falaa nekk ba ñu tuddee ko benn troupe bu tudd euh, jotaay askan bi ñuy jël tamit ay coupe théâtre populaire quoi falaa tàmbalee suma carrière di dem su ma déggee film cinéma am na ma dem taxawaalu foofu ñu jël ma figurant ma nekk ci sama carrière noonu la fa demee noonu la commencé nag may surtout bi ma demee ci madame Brouette maak Tafa Niass ñu joué foofu figurant tey ñu joué loo ma benn borom dawalkatu saret am na boo xam ne paa lañ ma def ma yor yet di dox benn bi fas laa yor beneen bi safara bi tàkk ma yenu saako ceeb daw dugg mais tey bu ma toogee man rek maa la mën a wax maa ngi nee maa ngi nee falaa toog ma ne ko tafaa man artiste acteurs yi may gis ñu joué fii ñun war nañ mën li ñuy def est-ce que duñ dem jàngiwaat leneen parce que ñun est-ce que duñ dem jàngiwaat leneen parce que ñun essant nii fi ñu toll nii ñu ngi wër ñuy joué ay figurant figurant mais nañ dem jéem a gën a gëstu si la mag si laa dem defi ay formation mais formation bi pour mu yombul Ibrahima Mbaye soppe fi seen loob sama sama kookoy sama patron si art bi parce que moom moo ma gis en 2010 si benn projection bu mu ñëwoon suñu troupe defoon ko si la ma jël yóbbu ma euh, gët ak ñoom Issa Laay ndeysaan troupe femme bi defal ñu formation Omar Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm te yéexeñu ñu defal ñu foofu ay formation si lañ jugee joué si Fesman bi représenté Sénégal mu nekkoon lu rëy rëy rëy rëy bu nekk sama premier spectacle professionnel boo xamante ni théâtre scène la quatrième art live maanaam ay une heure trente minutes nga nekk si kaw scène te doo wàcc. mu jóge fa joxaat ma ma koddu Meng ma koddu yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu cinq style comédie yëpp moo ma ko jàngal. style yi comme dañuy naan bouffon euh, comédie musicale euh, nu mu di sax. comédie musicale euh, clown ay kii la quoi ay branche la quoi humoriste yooyu yëpp ci da ciy dugg quoi ci cinq style comédie euh, dina ma neex waaw nekk na produit bi nga xamante ni franchement lancé na ma mais man maa ngi njëkk a def sama premier produit maa ngi ko def 2012 la génn quoi mais 2010 laa ko tourné ak Ibrahima euh, ak Brahms mbay miin na Ndakaaru moom ak Max Crazy ñoo roon loolu ma def ko maa si nekkoon acteur principal. maa ngi ci doon joué benn personnage u paan yi jugee Pekes ñëw Dakar bañ may woowee miin na Ndakaaru boobu laa njëkk a joué mu daw 2STV daw 2012 2013 deux saisons quoi mu arrêté mais nag euh, dina ma neex mun naa ne bokk na ci lu ma gën a tax nit ñi gën ma bàyyi xel loolu maa ngi ci gërëm may ak jëkkëram parce que tey bu ma demee ba xam Leuz Média mi ngi jóge ci may jóge si jëkkëram <laughs> artiste moom laa bëgg doon du ma du ma maçon du ma menuisier man artiste comédien laa suma métier la parce que daf ma jaral ma def ci ay sacrifice bon ñu bëri gëmuñu ko woon mais man ma gëm ko parce que xam naa fi ma bëgg jëm ma gëm ko rek nekk ci waaye tey ji ñu ko gëmul woon gëm le nañ ma ko ba pare di ma si ñaanal xam nañ ne bon yàllaa koy def man nag dépp ba ma nekkee xale dama xawoon am ay bagage mooy lu ñuy wax euh, dama mës a am don mais ni ko ma koddu meng di waxee yàlla na ko yàlla yërëm don dafa nekk loo xamante ni daa wóorut parce que boo koñ boo dem am na benn comédien <laughs> groupe boo dem am na benn comédien boo xamante ni bu nekkee ci groupe bi kenn du ngem mais tey jii don boobu ngay am da ngay dem taxaw spectacle di jouer yow yaa ngi jouer ci kaw spectacle bi di ko di ko di ko toj nga wàcc ci benn séquence rek nga dégg sa yaay dee na <clears throat> automatiquement don automatiquement don bi euh, moo fay nekk yow automatiquement sa yaay ngay xalaat mais su dee def nga euh, ay formation ba am technique parce que technique mooy tax xam nga artiste art du course de vitesse course de fond la technique yooyu ngay liggéeyee mooy say arme da ngay dégg sa yaay dee na sax yàlla na mu si yàlla musal mais nga jëli say technique jouer spectacle bi mu jaar yoon spectacle bi su jeexee ba nga nuyoo ba dugg si biir foofu booy xam foofu ngay xamee pour mun a jooy sa yaay yooyu nag ay technique moom la koy may maanaam artiste lu ñu wax dafa war a gëstu dafa war a yaatal boppam parce que du physique bi rek xel mi ci la bokk waaye tamit physique bi si la bokk parce que da nga war di entraîner di defaraat sa yaram di inspiré wu. waaw sama participation si biir yu taxi nii la demee da daan daw maak sama jabar toog ak sunu waa kër yi toog di seetaan. ñu toog seetaan noise ma ne ko lii de Leuz moo ko def mais nice naa ñu continuer toog di seetaan ba benn jour rek Leuz woo ma tombeek may raxas sama oto bi di ko raxas Leuz woo ma allo Seydou man la Leuz nangam sangam gis nga sama produit bi may def temps si tele bi ma ne ko waaw mu ne ma dama bëggoon nga ñëw suba ñu waxaat ñu waxtaan ba pare waxtaan si contrat après yooyu noonu nga jéem a ñëw dugg parce que benn raxaskatu oto laa la bëgg def fekk man maa ngi raxas oto. affaire bi vivre ma ma ree bon ñu dem ma préparé armée sama bopp taxaw nag dëggal sama bopp ma ne su ma demee lii laay wax ba ma ñëwee ñu dugg si bureau bi leus ba ma waxee prix bi may fay teguma ci baat parce que fa ma xàccee man moom du ko doublé. li ma gën a neex ci yu taxi mooy Golbert Diagne sunu papa sunu sunu maam sunu kilifa. waa boobu ti see dama ko seetaan dama leen doon dund di leen seetaan nekk xale bu tuuti di leen seetaan mais ñu def benn produit boo xamante ni ñu ne golbeer Diagne man moom laa bokkal même produit man ma bokk ci man damay sant yàlla si loolu bu baax a baax produit bi war waroon naa sax mën a jël ci liñ ma fay ma dolli laat parce que daf ma boole golbeer Diagne Golbert Diagne ëpp na ma idol c'est-à-dire Golbert Diagne ñun sénégalais xam nañu ko dafa am lu mu liggéeyal Sénégal fii si aar bi bu lu lu wér lu dëgër ñëpp bëgg woon ko te yàlla tax troupe Saint-Louis bi li fi def dafa ëpp ah ak Pa Mansour Bara yàlla na ko yàlla yërëm te te te xaaree ko àjjana man loolu suma rêve la woon ma dal ci mu nekk lu ma neex neex lu ma gën a neex si produit bi mooy golbeer jaañ tey ji te image day dund Milan fii ba kii gars bu génnee archive di dañ xam ne Seydou bokkoon na ci pièce bi mais euh, maam Golbert Diagne mi ngi si woon yàlla na ko yàlla yokk wér yàlla na ko yàlla yokk taxaw yàlla na ko yàlla gën a sàmm mu gin fi yàgg te ànd ak wér loolu moom dama ko dencoon sama biir xol lu ma waroon wax la te dama koy wax waaw projet yi man maa ngi ah, euh, du ma ne xale laa xale laa sax damay maa ngi nii di liggéey chaque jour maa ngi répété chaque jour maa ngi liggéey parce que liggéey mun na ma bettee nu ne parce que man parfois damay toog waa Sénécap woo ma ne ma casting bi ñu def de dañoo viser rek yow lañ ci sentir ma ñëw ñu defal ma dóoral ma contrat dem parce que liggéey naa ak ñoom si aujourd'hui bi nga xam ne moo jël étalon d'or liggéey naa ak ñoom si euh, yaadikoon yooyu dama si am rôle liggéey naa ak ñoom si terre mer yooyu tamit dama si am rôle mu nekkoon loo xam lu ma neex la te mais loolu tamit mu ngi jaaree ci Ibrahima Mbaye Soppe parce que moo nekkoon seen directeur de casting si côté film cinéma film cinéma moom nekk na loo xamante nii ba ma demee ba am si si laa doon xam ni ma doon coono yu ma daan daj di wër di dem ci plateau yi ma ne voilà léegi yàlla mi ngi indi sama rêve euh, maa ngi koy maa ngi koy am su ma demee bay bokk ak ay acteurs yi mag di jouer ak ñoom mu nekk lu ma neex trop parce que film cinéma mooy <laughs> mooy mooy mooy mooy septième art mooy barrière bi nga xam ne ñun comédiens yëpp ñu ngi koy rêver pour def ko man nag yàlla dafa def mun naa ne si laa gën a fa laa njëkkee daal art bi man de mi ngi dox ci man waaw maa ngi ciy sant suñu borom xam nga lu tax man duma romb benn nit bu teg fee kafem di jaay kafe fukki dërëm romb benn nit bu teg caafam di jaay fukki dërëm. te jomam buy jàngi école mu jëndal ko ay kayek jëndal ko ay lépp yaa may dégg man ma nekk ci sama aar di ci am samay fukki dërëm toog di ko weer amulu ma benn njëriñ xaalis bu ma mës a téye mu yegg barem bu ma ëpp ci théâtre laa ko amee beneen métier mosuma ko may donte ne man def naa menuiserie def naa euh, ferrailleur bâtiment jaar naa ay jaar mais xaalis bi mës a tegu sama loxo mu nekk xaalis bu kawe si aar laa ko amee loolu dama koy delloo njukkal aar bi di ci sant yàlla maa ngi ci sant suñu borom mot de la fin bon yàlla bu mu fin te yàgg fii non bu mu fin man fin fin fan yow lan la <laughs> non affaire dafa gaaw dafa neex waaw pour jeexal damay gërëm waa Leuz Média parce que ñoom ñoom ñoo ma bëggal seen bopp man dama ñëw rek ñu gëm ma bëgguma troisième saison laa ñëwee dina ma neex may mun a merci ci li nga ma xamaleeg Leuz Média may mun a dina ma neex peace seen love ma sœur sa borom kër mënoon naa am nu ma ñëwee fii rek ñu am nu ñu doxalee du ma arrangé te du dox si man man dañoo ñëw ñu bëggal ma seen bopp ma ñëwee troisième saison dina ma neex ba ma ñëwee troisième saison dina ma neex ma fekk fa ñu ma mën fap ay ñoom Aline mbay ay ñoom Daaru ay ñoom xëch ñoom Chris Brown ñoo ma mën mais tey jii lës di defaat beneen produit woo ma du sama aay sama sens la li ma waroon lekk la mais loolu lu rëy la si man du lu ndaw kooku dama naan lës média yàlla na ko yàlla yokk bu mu am télé yàlla na ko yàlla yokk ba mu nekk koo xamante ni si dëkk bi képp kuy jëm ci wàllu documentaire ba ci film cinéma ba ci téléfilm ci lëz ngay ñëw ba ci publicité parce que ñu professionnel ñoo fi nekk. à part nag euh, di gërëm asugay bi nga xam ne moom moo ma yar euh, sama yaay sama papa dafa teel a gaañu ñu jox ma sama doomu bàjjan mu yar ma def ci man lépp lu nekk ci man. kooku dama koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér di gërëm samay goro sama soxna jàpp na si sama carrière bu baax a baax waaw lépp bi nga ma laaj nii man fooroon naa lépp bu muy gën a nekk xale mais fooratuma si mais léegi bàyyi ma defal la benn léeb rek boo xamante ni dañuy wax xale sa doom danga koy yar boo ko yarulee su demee si mbooloo mun na la rusloo fii dafa am benn borom tama mais borom tama gi daa mun tama borom tama gi day jékki saa yi aay aay yëpp amul bëñ amul fenn fu am bëñ te mi ngi yëy guro ba ci kii xam naa da ko joos ah jékki saay benn xale bu ndaw bu am 3 ans mama mama xoolal borom tama bi dafa jaal mu ne hmm, hmm. maa ngi la ko njëkk a fóon yàlla nga <laughs> tàbbi àjjana yee mënuñu dëkk ci anaka gaskan bu amul àpp fu sobe di xel ñu war ko màpp upp ko ràpp dooley kaaraangeel nañ ci jàpp jàpp sëgëm ràbb jig na bopp ràpp